xam nga lu tax Balla gay marke ma. moo tax maa ngi nuyu de passage Aziz Abdou Aziz Ndiaye euh, di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm xam nga Balla gay lu tax mu marqué ma Balla gay woy juróom la jëkk a bëgg ba muy laata bëgg kenn Balla Gaye dafa dem ba dugg biir arène daan maam Ngor Diouf bu Bawol ñëw fekk ma ca Assane Diouf ñu bare ngi naan Assane Ndiaye tëgg làmb jooju mais déedéet Medzo production moo tëgg mbapat moomu teg benn télévision bu mag ak quinze mille francs yaa ngi may dégg maa yor micro central man la fay bala ngay ñëw ne père ma ne ko am ah, mu ne ma nañ ma bind ma ne ko bind yow booy yi sakku ci bëre premier combat arrêté arène dootoo bëreeti mbapat mu ne ma père ma ne ko am ah, mu ne ma télévision bële laa bëgg yóbbul sama yaay sama yaay kër gi ñu susul fa lay seetaanee télévision. ñu bind ko mu daan ñëpp daan tafaatin demi final tafaatin mii. ñuy wax. waaw tafaatin la daan demi final daan Alioune numéro deux final jël. Euh, euh, euh, meen bu géejawaay bu géejawaay moom la bëreel final daan ko jël télévision bi ak quinze quinze mille francs Ah, euh, douze mille francs ki mu ki ñu daan moom lañ euh, euh, final moom lañ jox trois milliards mu jël douze mille yi may dem fay nañ ma sama micro central ba may dem mu daw dab ma per per per per ma taxaw mu génne ñeenti téeméer yi ne ma per ma ne ko am ah, mu ne ma am ma ne ko lu ma koy doyee man fay nañ ma sama micro central xoola booy yi ànd ak yow te nga war a ñibbi ba géej way war a jël su per mu ne ma per ma ne ko am ah, mu ne ma téyel ma sama ñeenti téeméeri yi ma wax la ma téye ñeent téeméeri. ma ne ko ah mu ne ma dama bëgg nga jàppale ma ji nga sama doole ji ma ne ko ah mu ne ma kër gi sama bàyyi jaayoon moom laay jënd jox ko. barke ti yàlla Muhammad ma aalu nang ne ko di nga nekk roi des arènes. ma ne ko billahi di nga nekk roi des moo tax keroog ba mu daanee Yékini man la jëkk a woo jàppale wu ma ko lu ci ñaar ñooñu ma wax rek yaay sama papa moo tax yàlla may ko li mu ko may.